réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. Les TV. jërë jëf jërë jëfati mbokk internet yi yéen ñuy saa su ne cant ak leen bu baax a baax tey la samedi ñaar fukki fan si weeru avril 2024 dal leen ak jaamu si xibaar yi. ñu dooree ki nga xamante ni moo di Boubacar Sèye moom mii na nga xamante ni day demande daal ki nga xamante moo fi nekkoon jiitu réew di président Macky di ancien président moo di Info Sport nekk président l'ONC Euh, ONG Horizon sans frontières moom moomee nag di wax daal ki nga xamante ni mooy président Macky Sall mii daal dañoo war a teg si ndoddam li nga xamante moom la ñuy wax mandat d'arrêt international mandat d'arrêt international nag ma boo déggee mooy que ne daal ma teg mandat boo foo xamante ni si kawam daal maam fépp fu ñu ko fekk daal mën nañ ko faa def coppite ndànk indil ko ki nga xamante ni daal moo di procureur du Sénégal moom moomee nag nee lu tax mu wax loolu daal mooy que ne daal président Macky Sall nag mën nañ ne crime li nga xamante ni mooy crime politique boo xamante amoon na ci biir réew mi ak économique boo xamante ni rayoon na ko ba mu ci biir réew mi ak yéen yoo xamante ni mën nañ ne moo ko fi indi woon ci biir réew mi di Sénégal loole nag mën nañ ne waru fee jugee ba noppi nag ñuy daal di bàyyi nu ne mel mu daal di seddee noonu ñee nag ñi nga xamante ni ñoo jiite réew mi jamono ji nag bu fekkee nag bëgg nañee maanaam euh, service ñi nga xamante ni ñoo di seen peuple bëgg nañ leen neex daal nañ teg ci kaw ndodd ki nga xamante moo di président Macky Sall mii daal ab mandat lii nag moom foog ñu topp ko ci yoon ndax buñ ko bàyyee ni daal dana nekk loo xamante ni daal mbir mu lay doon ndax nag mën nañ ne ayam bi nga xamante ni am na ko fii rawat na sax ci euh, dernier mandat bi ñi nga xamante ñoo yàqul Sénégal yi wala sax ñi nga xamante ñoo ci ñàkk seen bakkan ba noppi nag mu euh, perte li nga xamante ni moo di gouvernement bi ba noppi ñu daal di koy bàyyi mu jeex mu jeexee noonu kon yaakaar naa dinañ amal ñu bari ñoo xamante ni daal ay àq lay doon kon nag ngi ñaan ñeena ñi nga xamante ñoo jiite réew mi actuellement nii daal ñu teg ci koom Macky Sall li nga xamante mooy mandat d'arrêt international bataaxal boobee moo xam ko ci réseaux sociaux bi nga xamante moom lañu ñuy wax X te mu nekkoon Twitter.